ناجيته بيا نصير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي jaar-jaari Serigne Touba di ab film documentaire bu leen daayira xaddimatul xidma bi yor jumaay Touba ju mag ji andil ànd ko ak waa RTS ci waajtaayu màggaluk Touba 2024 1446 ci gàddaay gi di film buy fësal jaar-jaari Cheikhul Xaddim li ko dalee Ndakaaru ba Gabon jaari Conakry Grand Bassam d'Ivoire Dahomey réewum Bénin Lambaréné Njolé Mayumba lépp di ay tolluwaay ci tukkib Serigne bi atum ba ni mu dellu see ci ndakaaru ci am réewam lépp di ndam ak mbégte film bi ñu ànd ko ak ay historien ak boroomi xam-xam yu jekk lool yoonu géej gi teg ci fësal ay image yu am solo lool film boobu nag di sur les traces du Cheikh képp ku ci bëgg a ànd ak waa RTS ca diffusion ba ngir fësal seeni produit maanaam di ay annonceur mën ngeen a woote ci service commercial bi ci 33 849 13 12 wala 639 60 83 sur les traces du Cheikh di jaar jaari Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul